Sénégal France coupe du monde i 17 e de finale suba bu midi jotee ci digënté Sénégal ak France suñu gaynde yi naka lañ mëna def ngir gagner France gi Nak yan ñoy point fortu France yan ñoy point faible équipe France bi ak solution yi nga xamante warna war naa am ci match bi dañuy dugg directement wax li nga xamante moy point fortu France seen point fort moy seen collectif waaw équipe France bi collectivement dañuy la jouer amul défense bi amul attaque bi amul milieu bi kenn du bàyyi dañuy jouer donc di dem offensivement ak défensivement également ci bal arrêté yi tamit France lañ ciy dugal bari na loolu seen point fort la vivacité yi ñu am ci ilier yi tamit loolu tamit moom moo leen permettre seen match yu bari ñu koy dominer donc loolu nag Sénégal war nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax jéem a espace yi bu baax a baax fatt li nga xamante ne mooy couloir yi ba France du jàll donc loolu moo gën a nekk seen point fort seen point faible mi ngi nekk ci mën nañu wax ci première mi-temps bi donc boo gis France seen match yi ni ñu koy démarrer difficilement donc ni démarrer sen match yi une première mi-temps yi du baakha baax il va falloir que Sénégal harceler équipe France bi def leen pressing ci sen zone sen zone donc fekk leen sen zone attaquer les ngir jël li nga xamantene moy balle bi mais également France dañoo am lo xamantene dañ ko am moy sen défense bi ils sont très solides défensivement donc Sénégal il va falloir que Sénégal occasion yi mu am contre attaque yi mu am mu koy jëma dougal donc il faut être efficace et jouer collectivement Sénégal loolu la lay jugal suba pour ñu gagner donc français qui bo mais défensivement ils sont très forts Sénégal suba war nañoo espace yi bu baax baax def bloc.